vous sera proposé à la fin de cette vidéo waaye Y en a marre ñoom nag ñu ne dal di nañ suivre bu baax a baax conférence de presse bi nga xam ne waa police dal di koy def ngir janoo ak sénégalais yi ñoom nag ñu ne dañoo dal di seetlu ne waa police ci seen conférence de presse dañoo bañoon wax ci li nga xam ne mooy ponk yi gën a soxal sénégalais yi ñoom nag ñu dal di koy lim benn par benn indi ci itam ay exemple ba noppi samp ci ay laaj li nga xam ne ñoom jàpp nañ ne waxuñu ci moo di ay nit yu ñu gis ñu nekkoon ci manifestation yi di jàmmaarloo ak population bi soloon ay kagul maanaam nëbb seen ay kanam wala ay casque moto yoroon ay ngànnaay ba noppi taxaw ci wetu policiers yi nga xam ni gis nañu leen te ñooñee dañ doon tiire ci kaw population bi te kenn waxu leen dara ñoom nag ñu ne dañoo gis yeneen i ay nit yoo xam ne dañoo yoroon ay gànnaay yéeg ci ay 4 x boole boole kook di lëmbe mbeddu ndakaaru njaay yi ñooñee la ñuy laaj ñoom ñooy ñan fan lañu ñu kan moo leen recruter jox leen ay armes lan moo tax itam takk der yi daldi wuñu leen jàpp téye leen AGT News beneen ponk bi nga xam ne daal dinañ ciy wax moo ñeel takk der yi nga xam ne dañoo jëloon ay gone teg leen ci seen kanam ngir mu nekk bouclier seen diggante ak gone yi nga xam ne ñoo leen doon sànni ay xeer ci gone yooyu nemmeeku nañ ci kenn koo xam ne huit ans dong la daal di am leneen li ñu nemmeeku ci seen communiqué ñu wax ci mu ngi ñeel enlèvement ak torture maanaam ay nit ñoo xam ne jàpp nañ leen te xamuñ kan moo leen jël yóbbu leen toroxal leen te amaana ñooñee bokkuñ woon sax ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci manifestation yi beneen ponk bi nga xam ne ñoom waa Y'en jàpp nañ ne waa police waroon nañ cee mën a wax mooy toroxal gu métti métti bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci takk der yi jëmale ko ci manifestant yi nga xam ne am na ci ñoom ñenn ñu ñàkk seen bakkan loolee yëpp ñu daal di lim nag moo waral ñoom waa Y'en ñu ne police bu Sénégal daa war a daal di gën a ànd ak dal delluwaat ca nañ ko xamee woon te ba noppi itam leeral sénégalais yi lan moo waral am ñenn ñu doon manifester ñu toroxal leen ñëpp gis nañ image yi daal di wër àdduna wërngal képp ba tax na ñoom seen bata bataaxal ñi ngi ko jeexalee ci daal di xamle li ñuy teg ci kaw population bi te ba noppi itam lañ leen daal di sant muy protéger leen defuñu ko bu ëllëgee bu ñuy situer responsabilité yi dinañ leen ci boole ñoom ak ñi nga xam ne ñoo leen di commander nekk ñi ñuy woowee autorité yi fii ci réewum Sénégal loolu moo di bataaxal ba tukkee ci Y'en a marre donc comme vous le savez la police sénégalaise a tenu un point de presse rapporté des éclaircissements par rapport aux manifestations qui ont lieu actuellement au Sénégal, plus particulièrement dans la capitale, Dakar et la banlieue. Donc, comme vous le voyez, le mouvement Y a marre a suivi la conférence de presse de la police de ce soir avec beaucoup d'intérêt. Nous constatons avec amertume que la police n'a pas souhaité communiquer sur les points les plus préoccupants par tous les Sénégalais. Premièrement, ces individus filmés lors des manifestations en cagoule ou casque de moto sur la tête, armés aux côtés des policiers et tirant à bout porton sur les manifestants. Deuxièmement, ces personnes non identifiées à bord de voitures 4x4 armée qui sème la terreur dans les quartiers. D'où viennent-elles Par qui ont-ils été recrutés et armés Pourquoi elles n'ont pas été interpellées par les forces de défense et de sécurité Troisièmement, les forces de défense et de sécurité qui utilisent les manifestants, dont un enfant de 8 ans, comme bouclier humain. Quatrièmement, les enlèvements et tortures des Sénégalais qui parfois n'étaient même pas dans les manifestations. Cinquième point, la répression barbare et meurtrière des manifestants par certains agents des forces de l'ordre et de sécurité. Toujours Y'en a marre dans son communiqué, la police sénégalaise doit se ressaisir et éclairer le peuple sénégalais sur les images choquantes de manifestants désarmés, humiliés torturés et maltraités par les forces de défense et de sécurité qui ont fait le tour du monde. Cependant, le mouvement conclut en disant le mouvement Y en a marre appelle la police à faire cesser les bavures de ces éléments et de remplir sa mission de protection de la population. Sans réponse à ces questions, les forces de défense et de sécurité et les autorités qui les commandent continueront d'être considérées par les Sénégalais comme les seuls et uniques de ces exactions. Yanamar, un mouvement qui s'active actuellement à défendre les Sénégalais et mène surtout son combat avec le f pour empêcher le président Macky Sall de briguer un troisième mandat. AGT News.